ca bàkk ba cib na générique ba départ na jàngat làmb tàmbali na mbokk yi ma leen di nuyu bu baax a baax a baax fu mën a nekk ci réew mi ak bitim réew tey safa wasaare làmb waaye jiiri mu ngi lay jox loxo di la nuyu gën kaa kawe ci nuyoo gën kaa màgg ci nuyoo muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barkatu mbokk yi démb dafa nekkoon journée boo xamante ni journée bu am solo la woon ndax boo xoolee stade Jom Iba Mar amoon na làmb boo xoolee fi nga xamante ne mooy arène nationale amoon na làmb démb nag moo nekkoon dimanche le 14 novembre 2021 Jax production moo woon fële ca stade Iba Mar Diop bi nekkoon cinq millions. fële ca stade arène nationale Dieye Sène moo ñu fa woon boole ñaari combat yoo xamante ne ñaari mbër ay ndaanaan lañ mu doxoon ci diggante naar Sokaas ak Jackson ginnaaw loolu dañuy dem arène national mbokk xool dugg si mbëri xool ambiance bi xool lépp loo xamante ne jot na faa xew ci aada ak cosaan ak culture su ko defee ñu dellu si ci plateau bi let's go aadama ci loolu ne. sama waa ji sañ sañ de. Ah, man bandi la. non oh, macha allah bandi nga bandi bis bu nekk rek la xew. tey lii xew. tey sedd xew. boobu fekk na maa ngi fi laaxatu. mais sedd bi ay waxtu yu gàtt la. sedd bi ay waxtu yu gàtt la. moo tax mën nga bi ay waxtu yu gàtt la. man da ngay waaj tuus tuus naa sokaas ñu boolee bëgg si daan tuus naa sokaas est-ce que tuus ba nga tuus di ko tuus tey tey du ma sax tuus ndax lan dama bëgg làmb ah bëgg làmb tuus ñëpp nee nañ nag bi day ñëw jaar sa kaw jaar yàlla na ma yàlla jàppale yàlla na ma yàlla jàppale ngay wax lan ngay wax Jackson. code la après nga ñëw ma wax la code bi. waaw ah, baax na. Jackson nuyu na. fay naa la. ci loolee. sant naka nga waaj a bis. tey eh, waaw waaj comme daan waajee rek. comme du doon waajee rek waaw moom la waajee tey dem ci naa sokaas. nee na tey dafa bëgg a làmb. ba tax na tout sax na koo def ndax làmb ji mu bëgg tey. ndax bu tuusee kan ma koy yuuxoo. la mu doon nga tuusee. kan du non mais ay supporter am ak ah man ngi supporter yaa ngi gis waaw yow yow waaye. mais moom na ngay préparé li fekk fële mais ñun ñu ñëwee rek ñu bëree noonu. mais nag ñu ci bàyyi nee nañu. boo teewul na nga sokaas jum waaw seen xalaat dañu wax rek na mais incha allah dinañ bëri lu ñu war a bëree. dinañ daan nu a daan si kattan. am xeex. mën na ko mën na ko ñàkkam. Ah. waaw. ça dépend rek ça dépend moom. làmb. waaw dellu si yar. loone waaw sant yàlla kay. mais tey nga woo ba spécial bi naka laa waaw waaw sant yàlla rek. loolu lañ doon ñaan yàlla ñoo nekk mbapat di bëri ñaan yoonu yàlla yem si mbapat ñaan yoonu yàlla évolué nekk si beneen dynamique tey dañuy sant yàlla si loolu waaw ñoo nañu ànd ak suñu mbokk ànd ak waa yëmbal ànd ak waa jëf soog a nekk waaw di xaar heure bu jot rek comme dab ñu wane suñu bopp tey naka tey naka combat bi nanga demee est-ce que dina am xeex combat bi waaw laamu mag la nag tey laamu mag la laamu mag la maag booy bari moo ci mag mun naa ci am lu ne làmb mag la. ah làmb mag làmb mag la tey lu ne mun na see xew si kàttanu yàlla ku muy mujj mooy féetee suuf maa ngi ci kaw. loo koy wax. waaw jàmm laa koy ñaanal rek ndax loolu laa koy yéen la mais na ñëw tëdd rek loolu e koy wax na ñëw tëdd incha allah bu mu a rek. gën laa gën incha allah waaw waaj naa ak sumay mbokk yëpp ànd ak waa parcelle 1 ba 26 ànd ak sumay xarit sumay ñëpp suma waa église waa rek énes ñëpp waajal nañ ma daal di ñaan yàlla suñu borom defal ma ndam. vraiment est-ce que tey dina yomb. allah suñu borom dinañ defal ndam. loo koy wax. lu ma ko amul lu ma koy wax mooy bu ñu duggee mu tax a dëggal bu dëggalee boobam lamb allah. kon ci allah. mbokk yi gis ngeen xale yaa ngi noonu ku ci nekk ku ci nekk wane na boppam ku ci nekk gëm na ni ndam li moom moo koy yóbbu waaye gis nga làmba ngi noonu ñaari ndamay dugg si waaye benn ay génn kuy dugg si ci làmb da ngay yaakaar yaay jël ndam li mais compétition sport bu ne moo mel noonu booy dem da ngay jàpp ne yaa am ndam waaye boo duggee lu la yàlla jox nga dogal lu yàlla dogal nga gëm ko dem waajaat entraîné ji xam ni làmb noonu la gis ngeen loolu noonu léegi dañuy dem ci combat spécial yi ñëw ci combat préliminaire yi dugg si ci après grand combat bi léegi nañ dem ci combat spécial yi wala nañ dem ci combat préliminaire yi su ko defee ñu dellu si waat ci plateau bi ay ca sam wala boog ñoom ree fils de sam-sam la ñu jaakaar moo takk mooso bu xonk bi ci bopp bi am re mbokk yi moo ñu wan gën a abir bi sifle ñoom rek jëngi ngeen saako yi Fils de Samson plaqué na ko léegi waaye ñoom daa bañ biij na ko da koy mbot wala koy def plaqué na ko dawal na ak moom da koy daan Fils de Samson daan na ñoom rek li làmb nangu ak li làmb bañ laaj na ay jugeem laaj na Mbacke Faye laaj na Petit Ba abit sifle na Mbacke Faye Ba Mbacke Faye moo ñu woon ginnaaw eh Mbacke Faye daw na jël door na gauche droite daw na jël Mbacke Faye takk na ko Mbacke takk na ko biñ na lu mu koy def na war na ko ndombo yan na ko bañ ko doon daan na ko Mbacke daan na waaw Mbacke Faye daan na combat spécial baa ngi noonu Boy Badji Boss Tonnerre eh, daan na ko daan na ko Boy Badji daan na Boss Tonnerre dañoo doo mu plaqué ko mbokk yi gis ngeen combat yi nga xamante ni jot na ci xew gis ngeen combat spécial bi nekk na ay combat yu neex vraiment xale yi bëri nañ xale yi waneeti nañ seen bopp ñuy féliciter ñëpp ñoo xamante ni am nañ ndam démb ci journée Dieye production bi di encourager xale yi nga xamante ne am nañ ci defet di wax ni làmb noonu la mbokk yi ginnaaw loolu bis bi ñu doon xaar mu nekk combat bu yàgg doon combat boo xamante ni dañu doon wax naan xale la ak mag ndax xale bi di Jackson da doon def passation pour jëm ca kaw passage boobu mu doon def nag dina dem am du dem dañuy dem xool Jackson ak naar sokaas nan la làmb ja demee ak nan nan lañ bëree ñoom ñaar ay ca ñu dem ci Jackson ak naaru sokaas. Jackson am na benn avertissement naaru sokaas lañ jaakaar lool Jackson moo ñu wan gannaaw. Eh. Naaw Sokaas eh Jackson jël na ko Jackson jël na Naaw Sokaas Jackson Naaw Sokaas jël na ko eh Jackson Sokaas Jackson na ngay dóor na def ndànk Jackson defal ndànk Jackson defal ndànk daan na doole bëre doole bëre doole bëre doole bëre daan na Naaw Sokaas mbokk yi gis ngeen combat baa ngi noonu doxoon ci diggante Jackson ak Naar Sokaas Jackson ñu ngi koy félicité bu baax xale la boo xamante ni am na jom ci làmb xale la boo xam ne am na fulla ci làmb xale la boo xamante ni bëgg na li muy def te géejawaay ñu ngi koy déglu am nañ ci moom yaakaar bu baax a baax a baax ne li ma doon wax rek mbokk yi loolu laa gis ci Jackson Jackson boo ko gisee euh, bu bëriwut ndeysaan yar gi. teggin gi danga naan est-ce que kii sax mbër la waaye bu duggee ci géew yoraat na beneen safara boo xam ne bokkut ak loolu li ñu naan kon làmb mbubu la rek boo xamante ne booy dugg si ci géew bi da ngay doon gaynde waaye boo génnee da ngay sol mbubu xar gis nañ ko ci Jackson. ñuy encouragé bu baax Naare Sokaas Naare Sokaas vraiment bett nga ñu bari ci làmb ndax naaro bi ñu xamoon ndaanaan bi mu doon ci làmb démb confirmé nga wane nga ni ba tey am na loo dese ci xale yi. malgré nag ñu ci bari dañu gis ni xale bi daf la daf la gën a sàcc doole daf la gën a sàcc doole parce que xale la vraiment mun naa ni xale la ak mag waaye mag du mag boobu parce que Narou Sogas mënul magee Jackson dix ans cest à xale la rek ñaari xale lañ mais faw mu am ku mag te làmb d'habitude boo magee benn mbër ñaari ñaari weer sax dañu naan xale la ak mag mais Narou Sogas wane na ni bu gënee entraîné ñëwaat fa mu nekkoon ci làmb ba tey mën na fa nekk ñu koy encouragé waat bu baax di ko wax ni euh, xale bi sa rakk la moo la daan perto dara ci làmb ñu waatal ànd ak say mbokk ànd ak say njagañaale ànd ak képp koo xam ne dala doon jàppale dellu siwaat ci làmb ji Jackson réussir na ci li nga xamante ni moom la ko Naar Sokaas mayoon muy sens sens bi mu ko may nag Jackson fi mu toll nii yéeg na ci kaw mbokk yi Jackson képp kuy naataangoom ci làmb mu soxla la mu laaj la nga bañ da nga koo ragal ku mu laaj ci làmb war ngaa mën a bëreeg moom. des fois nag xale dina doxi sañ-sañ boo xamante ni doo ci mën dara ndax démb gis naa ko mu dëkk ki nga xamante ni mooy Quench Boy waaye combat boobu combat bu neex la waaye jàpp naa ni teel na ci Jackson ndax Quench ndaanaan la ci làmb bëri naag ñu nekk ci làmb waaye na gën a góorgóorlu rek ndax li euh, wolof naan borom bitug mbagg boo gis boo xaree dënn bi euh, magasin nga fay fekk. ginnaaw loolu ñuy jaajëfal bu baax a baax a baax promoteur bi nga xamante ne moo tëggoon làmb ji muy jéey seen ñu ngi koy félicité bu baax di ko wax ni am na ndam. ndax démb arène nationale vraiment ni mu ko def dañ koy félicité waat di ko ñaanal yeneen journée yi des ci kanamam yàlla na ko yàlla defal lu kawe njortam moom jëy seen ak staff bi nga xamante ni lay àndal yëpp di liggéey ginnaaw loolu dañuy barastiku rek jugee stade juge arène national daw stade Jom Iba Mar li traditionnel moo fa xewoon ak sa production moo ñu fa woo su ko defee ñu xool dugg si mbër xool cosaan xool culture xool aada am na lu muy yëkkati moom Serigne Ndiaye de ndaysaan ma ngay yëngal ndaysaan ma ngay yëngal ndaysaan obale ngi noonu ndaysaan Ibou Ndiaye Diofior dara Diofior baa ngi noonu <laughs> waxoon naa leen tey di yomb waxoon naa leen ko ndeysaan Ibu Njaay ngi noonu nee na day rendi nee na amateur yi lan la xamoon naa ne dina yëngu fekk na dëll bi Ibu Njaay yëngu na Cheikh Tidiane yëngu na laa mu ji dina yëngu kay nee na man la laa ilaha illallah ku nekk ngay yëngu Ibu Njaay ngi noonu ndeysaan Ibu Njaay ëppali ndeysaan ma nga noonu ma ngay dem lamb ji yëngu na lamb ji yëngu na lamb ji yëngu na nee na day rendi ndeysaan ndeysaan obbo léegi noonu Ibou Ndiaye obbo léegi noonu ndeysaan Cheikh Tidiane ñaa moo ndeysaan mbokk yi gis ngeen cosaan bi nga xam ne jot naa xew stade Diom Iba Mar gis ngeen dugg si mbër gis na li nga xamante ni jot nañ ko faa wane mu amaat leneen loo xamante ni jot naa metti mbër yi foofu ci stade Diom Iba Mar mbër yi ñu ci bëri dugg si woon nañ bu yàgg poids mu xawoon jur foofu ay polémique yooyu yàlla suñu borom def na ci ndox mu sedd def na ci ndox mu sedd mooy mbër yi dañu ñëw avant 15 heures bindu ñenn ci mbëri ñu ne leen liste bi fees na parce que li ñu waroon jël mooy 34 la ñu waroon jël ci wàllu poids bi te poids yi fa ñëwoon dañoo bari loolu macha allah mu bari ñoo xamante ni bindu wuñu woon boo xoolee ki jël compétition muy libidoor bokkul woon ci ñi bindu gisoon nañ fa ñeneen ñoo xamante ni euh, vraiment. ñoom it naruñu woon bindu Papa Gueye muuma mu ngi fa woon ak ñeneen ak ñeneen ci ndaanaan yoo xamante ne mënuñ leen a tudd caaka fay ma nga fa moom bokk na ci ñu doon aalu ci loolu waaye dañu jékki-jékki benn moment ñu dégg ci rajo bi gars ne may nañ mbër yi tardé woon yëpp ñu bindu ñëw compétir stade bi ñu bari kontaan waaye mu mel ni gisuñu caaka fay mu mel ni caaka fay dafa am lu ko lu ko metti ci diggante bi ba mujjewul takk ngembam mais làmb nag noonu la parce que booy ñëw dangay ngay pare parce que boo paree ñëw ba làmb ja ñu ne la ah mënoo bëree nga jékki-jékki découragé ñu waat ne la kaay bëre vraiment dañ lay déstabiliser te sport moo demee noonu. ginnaaw loolu ñuy féliciter ñoom ñi nga xamante ne xale yooyu yëpp ñëw nañu compétiraat bokkaat ci compétition bi ginnaaw loolu dañuy dem ci ñi nga xamante ni ñoo jot a bëre ñu dem ci quart de finale poids bi dem ci demi-finale bi dem ci finale bi su ko defee ñu indi jàngat bi nga xamante ni jot nañ ko cee joxe ay ca ñu dem Adama. nekk ci keppaaru Taajum kii nekk ci keppaaru Gris Bordeaux xam na ko. ñoom ñaar. Njaay ba léegi amul kii Saar Balaam bëggoon na koo ca xabal mu bañ. ndeysaan Serigne Ndiaye fàqan na ko da koo Serigne Ndiaye koy bëgg a forcer mu koy forcer takk na ko Ibou Ndiaye bañ na Ibou Ndiaye bañ na Ibou Ndiaye daan na Serigne Ibou Ndiaye daan na Serigne Ndiaye Production moo ñu fi woo ci wàllu wee ngay am ndeysaan Libidor ak Ibou Ndiaye Obali gis ngeen plateau bu riche ñoom ñaar ku daan dem final ñu ngi ci demi-finale yi Ibou Ndiaye Yankaw daw na jëli ko Toubacouta bañ na Yankaw fàqan na ko Toubacouta jël na ko daan na ko ñoom ñaar ngi noonu ndaysaan ñoom ngi noonu taxabal na bañ na mbot na mu bañ Ibou Ndiaye Libidor Ibou Ndiaye Libidor Libidor da koo nar a Libidor da koo bëgg a buux Ibou Ndiaye dafa bañ ñu ngi koy buux ñu ngi ñëw Ibou Ndiaye ngi bañ door na ko daan na ko Libidor daan na Ibou Ndiaye Libidor daan na Ibou Ndiaye. ñoom ñaare ngi noonu. Toubacouta ngembo ngemb lu ñuul Libidor ngembo ngemb lu xeex xonk. Ndeysaan final bee ngi noonu. ñoom ñaar kenn du asaaloo sa ndax ñaari xale la ñoo xamante mën nañ foomi. Ndeysaan Toubacouta. Yankaw Junior la daan demi-finale am finale Libidor Libidor daan Ibou Ndiaye am finale Toubacouta kon ñoom ñëpp ku ci nekk dina wane boppam Toubacouta Libidor ndaysaan xale noonu Toubacouta Libidor ndeysaan Toubacouta Libidor Libidor daa bëgg a forcer combat dina ko ko mayam déet Toubacouta Libidor fàqat na ko mu koy fàqat mu koy fàqat daan na ko wala Libidor war na ko ndombo jàpp na Toubacouta Toubacouta daan na rambot wala déet Libidor fi mu jàpp baax na moytul tegal sees bi ndaysaan amateur yaa ngay wàcc nee nañ jeex na daan na ko wala déet daanagu ko daanagu ko ndaysaan Libidor war na ndombo Toubacouta Libidor war na ndombo Toubacouta Toubacouta dina rëcc dina wala déet fi mu nekkee baax na Libidor daan na Toubacouta ayca ñuy félicité waat bu baax a baax a baax euh, Libidor diggantem ak Toubacouta bëre na bëre bu bu rëy daan Toubacouta ñoom ñaar nag ay champion ngeen Libidor yaag Toubacouta bi làmb ji jeexee am na loo xamante ne yéen a ko fa doon def te du seen cër làmb ji mënul guddee jeex ay minuit et quelque stade Jom Iba ku ne xam na ne dafa xaw a sori te ñi ci dëkk ñi ci ëpp bu ñuy ñibbi ci banlieue bi lañ dëkk coow mën faa am lu ne mën faa am ngeen indi coow ci yéen ñaar boo xamante ne combat bi jeex na loolu bokkul ci liy defar làmb te compétition yi muy seen kanam. di ngeen di gën di daje yéen ñaar mun ngeen dimanche bu jot ngeen dajewaat te comme làmb moo leen boole di ngeen koy jéem a rafetal parce que yéen ay exemple ngeen ci làmb muy Libidor muy Toubacouta yéen ñaar ay exemple ngeen ci làmb te làmb tamit boo fa duggisee stade bi ñëpp jug yuuxu war ngaa xam ni waroota def erreur ci biir làmb ji ñuy encouragé waat beneen xale muy Cheikh Tidiane Niang mu ngi ñëw ci compétition yi waaye daanaka neex lay gul ñeex léegul nag euh, vraiment mais ñu ngi koy ñu ngi koy encouragé bu baax. di indi benn jàngat rek ci diggante Ibou njaay Obali ak Serigne Ndiaye 2 mu nekkoon combat boo xamante ni ñaari poids lourd lañ waaye ñoom ñaar wure nañ ci bëre ba bëre gi rëy na lool macha allah ñoom ñaar ku ci nekk wure nañ ñu bëre. Ibou njaay Obali vraiment ndaanaan la ci làmb Ibou Ndiaye dafa am benn benn benn benn seetlu boo xam ne gis nañ ko ci yow mooy da nga nekk mbër moo xamante ne ndaanaan nga ci làmb waaye da ngaa gaaw a suur bu njaay bool saa yoo daanee favori ci làmb d'habitude doo jël compétition ba ndax bi ngay daan Émine François Gomis fële ca terrain gaal ga gis nga bi nga ko daanee ba pare ba nga bëriwaatee da ngaa ñàkk sa compétition démb tamit daan nga xale bi nga xamante ne mooy Serigne Ndiaye 2 bu faas mais gis nga bi nga ñëwaatee ci Libidor mu daan la. loolu yëpp nag niñ ko mën a tuddee mooy ñàkk consi ñàkk concentration ci làmb nga gën a góorgóorluwaat bu baax ci loolu bàyyi ci xel parce que làmb du fowukaay euh, ku daanu rus dëgg loolu du fowukaay te làmb ku daan da ngay gën a yëkkati Serigne Ndiaye mu am benn constat boo xam ne def nañ ko démb sa diggante yaag Obeuli mu nekk combat boo xamante ni bëri ngeen Obeuli jël benn avertissement ngeen premier temps bi jeex ngeen duggaat ci deuxième temps bi nga bëgg jàpp Obali forcé ko ci action boo xamante ni ëppoo ko doole ñaari yoon mais nag làmb noonu la euh, bi bi bi nga daanoo jug nga indi polémique daano na kat api am na kat api amul bind nga recours dem nga arbitre yi jox nañ ki nga xamante ni mooy Obali ndam ñu lay félicité bu baax ci geste sportif bi nga def yow Serigne Ndiaye 2 ndax bi record bi génnee ñu ne la a ah, Obali daan na la da jug tàccu saafanteeg supporters yi solaat sa yére dem ñibbi ànd ak say mbokk di wane ni compétition bi jeexagul làmb yee ngi seen kanam ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax léegi su ko defee dañuy dem ci final poids lourd bi poids bi ak final raw gàddu bi su ko defee ñu ñëw ci jàngat bi ay ca ñu dem. ndeysaan mi ngi noonu. Babacar Tintone Junior Babacar Tintone Junior Babacar Tintone Junior jëli na ko Babacar daan na ko daan na Babacar Tine Tony jël na ko ndeysaan ñu ngi ci finalu raw gàddu bi daw na jëli ko ngóor ñaax Sidi daw na tëli ko ngóor ñaax na ko fu sori Sidi bañ na ñoom ñaar dinañ bëre dina rëccam déet ngóor ñaax daan na ko ngóor ñaax daan na Sidi ngóor ñaax jël na final raw gàddu bi ndaysaan jël na final raw gàddu ñuy féliciter xale yi nga xamante ni jël nañ compétition bi yëpp Euh, ki njëkk di ki nga xamante ni mooy euh, Tony Junior Tony Junior naanaan la ci làmb mu ngi wane ay preuve am ci làmb bëri dóor bi mu ngi koy wane ci lutte traditionnelle bi te it loolu la ñuy xaar ci moom xale la boo xamante ni kër mbin la dëkk waaye am nañ ci moom yaakaar xale la boo xamante ni vraiment ndaanaan la ci làmb ñu koy félicité bu baax ci ndam lu rëy bi nga xamante ni am na ko démb ñuy félicité waat beneen xale boo xamante ni moo jël ci wàll raw gàddu bi muy ngóor ñaax ngóor ñaax nekk xale doon xale bu am jom nekk xale bu am fulla ci bëre bi ci ci ci ci dal gi ci teey gi ci yaru gi moom ngóor ñaax xale bi nga xamante ne bari ki moo nekkoon euh, champion CEDEAO jël ko équipe jël ko individuel démb mu génnaat sorteem jël ko muy wane ni kon xale bi mu ngi def beneen jéego xale yu mel noonu nañ leen di tëgg ci làmb bëri dóol bi parce que am nañ fa cër am nañ fa wàll. ngóor ñaax dafa war a jot mu bëre ci lutte avec frappe bi wane ay boppam comme ni ko ni ko moroomam di defee xale bi di Tony Junior war na ko wane. mbokk yi ñu leen di jaajëfal bu baax di di di encourager xale yi nga xamante ni gis naa leen fa te ñu xàmmee leen ci bëre door ay xale yoo xamante ne xàmmee nañ leen ci bëre dóor bi ñëw nañ démb ci compétition bi wane seen bopp njëkkee ko ci Saba Saba mu nekk xale boo xamante ni euh, Saba la Saba ak sabala la Saba nekk xale boo xamante ni moom it macha allah mu ngi am na combat ren waaye ñëw na ci compétition ba démb wane boppam. gis naa xale bu mel ni sabala tamit moom it na wane boppam ci compétition bi. gis naa xale bi nga xamante ne mooy Koña 2 moom it ñëw na ci compétition bi nekk xale boo xamante ni njàmbaar la perte na demi-finale mais njàmbaar la wane na boppam démb ci compétition yi te loolu lañuy xaar ci ñoom gis naa xale bi nga xamante ne mooy Albarka Kayre moom it ñëw na ci compétition bi nekk ñi ma lay limal ñii ñëpp ay mbëru dóor lañ ñëw na albarka ñëw na démb ci compétition bi def na ko comme na mu ko daan defee albarka li ma koy gis muy compétir bari na malgré amagul sens jol mais mu ngay mu ngay wane boppam gis naa booy Dakar moom it ñëw na wanewaat na boppam ci bëre bi ñuy séntu yeneen mbëru bëre dóor yëpp nañ leen ñëw ci lutte traditionnelle bi di compétir parce que comme folo rek nañu ñëw nañu wane seen bopp nañu bëre ci seen biir ndax seen yaram gën a màndi bëre képp koo xamante ni yaa ngi doon hésité pour ñëw ñëwal sport la li traditionnel dara nekk fa da nga fay jàngee bëre ñi ngay gis ci ndaanaan yi làmb yëpp jaar nañ ci li traditionnel mbokk yi di leen jaajëfal bu baax a baax a baax di gërëm képp koo xamante ni yaa ngi seetaan wasaare làmb di leen jaajëfal bu baax di am kontante ak mbégte ci ànd bu rafet bi nga xamante ni yéen a ngi koy ànd ak wasaare làmb di kontaan bu baax ci noobul bi nga xamante ni moo ma solal solalati ma yi may def émission mu solal ma ma koy jaajëfal bu baax numéro noble du 77 707 00 06 10 mu nekk xale boo xamante ne ma nga fële ci en face cinéma bu unité 3 Parcelles Assainies di ko jaajëfal bu baax mbokk di leen jaajëfal ci ànd bu rafet bi nga xamante ne yéen a ngi koy ànd wasaare làmb doo jën ndox doole lay waykat public doo lay wasaare lamb yéen la suñu mbokk internet yi di leen jaajëfal bu baax.